xaajoo tey li ci waa bitim réew am sax jàpp naa ne waa Sénégal amuñu ko ci kon donc ñoom bu ñu ñëwee tey euh, ñu tase ak ñoom dafay jur xaritoo dafay jur bu bari parce que man tey rek ñu naa fi ak ñu bari ñoo xam ne euh, seen jur te naa ne sama tur lañ daan dégg te tey am nañ occasion di sant nuyoo am solo la ndax euh, euh, nekk ci jàmm gën a booloo parce que dafa am benn wax boo xam ne euh, Sadikh Top dafa ma ko waxoon jour bi ñuy collecté campagne bi daf ne ma sëñ Baara mu ne ma mu ne nga ñaan ni ñu bëggantee bi ñuy opposé wu bu ñu ko bëggantee yore ko pouvoir bi. kenn mun a tere réew mi day avancer te loolu nag euh, ci la ñuy dox ñun guddeeg bëccëg suba ngoon parce que du jël nañ nguur gi rek kenn ku nekk da ngay dem def affaire personnel tey lañ war a gën a soxlawoo booloo tey lañ gën soxla soxlawoo xaritoo tey lañ gën a soxlawoo euh, mbokkoo kenn ku nekk loolu day gën a may fit suñu leader yi pour que ñu xam ne Sénégal euh, yëpp ñu ngi ci seen ginnaaw voilà ko li may tooñ saa boo gisee ku naan jomaay lii taxuloon ñu fal la rek boo ko laajee wateelul jomaay waaw da ngay gis koo xam ne opposant bu mag la woon def na lu mu xam pour ñii bañ a falu su defa jomaay bee fee benn acte mu waa président Diomaye lii euh, Sonko dem ay ay ay grand théâtre di wax taxul woon ñu fal la te moom falu ko de ñun ñi nga xam ne ñun ñoo leen faloon plus que ñi ngi gën a booloo rek ñoom li ñuy def dañ ciy gën a am fit parce que dañoo soxla soutien wu peuple Sénégal te xeex bi li ci des dafa bari lu nekk suñ kanam dafa bari. ban message ngay ngay lancé waale euh, ndaw ñi ñi ñii ñi ngi fi ñii ñi ngi toog di la seetaan. waaw ndaw ñi moom message bu ma leen di lancé rek mooy ñu jël Ousmane Sonko def ko muy suñu idole def ko muy suñu royukaay euh, parce que mate na ko Yoro Dia euh, gis naa ko barki démb ñu am ko wax ne Ousmane Sonko dafa def li Nelson Mandela def gis naa ko mu def effort bu mag. pour wax ne Ousmane Sonko ak Mandela ñu di wax ne waaw Ousmane Sonko révolte la def Nelson Mandela révolution la def mais moom xamul ne bépp révolution boo gis maanaam amul révolution bu amul révolte révolution maanaam bu doon jëmm révolte moo koy jëmmal donc ma ne ko yoro jërul ngay sonn parce que la fait que rek ñu mën a am benn sénégalais bu ñu tudd di tudd Mandela ba yow ngay def effort pour wane ne yemuñu rek kon kooku bokk wane na nekk du ko ndaw ndax yaakaar naa ne Afrique bii ñu nekk tey Sonko usmaan Sonko rek nga mën a tudd di jël turu Mandela di leen di leen tëkkale même bu ñu yemul rek le fait que nga leen di tëkkale wane na ne Sonko nekkul ku ku mel noonu nag boo ko amee sa réew da nga koy téye da nga koy fonk da nga ndamoo te da ngay feer ci moom te Ousmane Sonko nekk na nit bu nga xam ne euh, wax naa ko fan wala ci sama benn interview soo jékki-jékki woon ñu ne la nga ñëw sa kër ne ana sama jabar ñu ne la xar mi moo ko mat ba mu ngi hôpital doo ko gëm te xar mala la de mais parcours bi nga am ak xar xam nga ne xar du mat kenn Ousmane Sonko parcours bi mu def ak ñun parce que témoignage boobu nga mën a defal xar parce que da ko xam témoignage boobu tey peuple Sénégal mën nañ ko defal Ousmane Sonko parce que xam nañ parce que nekk na fi fi la jànge fi la liggéeye fi la defee politique fi la dugg kaso fi la defee lépp ba tey mu jiite réew mi. buñ bëggee xam naka la yore réew mi rek nañ xool parcours bi mu jaar ba xam moom sàcc la wala dafa bëgg am du patriote wala intérêt personnel lay demee yooyu yëpp soo ko xoolee rek di nga xam ka ne Ousmane ko mooy kan ay bu kenn déglu Ousmane ko ci kenn yow déglu ko xoolal ci parcours am te Sénégal ñuy dellu ci parcours nit nit ku nekk sa parcours war nañ la see mën a delloo xam yow yaay kan. waaw mais tey suñu xam ni. bu leet bi ñu ko falee def na ñaari weer bu soogay génn euh, dem ci réew bu ci mel ne France coow yi nag bëri na ba ñu fa demee yow ban jàngat nga def ci sortie bi nga xam ne. non moom demagul France demagul France demagul France mooy du question ko yaa ngi ci suufu France rek yaa ngi France Afrique ñoo organisé am ndaje moo xam ne dañoo wax ne France lañ koy defee moom mu dem ci ndajam Afrique moo xam ne France koy def mais France ci maanaam. Euh, bu fekkoon ne fa la Diomaye dem amul sens Macron naan ko may ma occasion ñu ndékkeendoo cela veut dire que mooy ci liggéeyu Afrique la nekk ak liggéeyu Sénégal Macron soxla ko bëgg a gisanteeg moom te loolu euh, ku dugg ci kër tamit war ngaa mën na jaar si buntu bi te gis nga ko dem na seeti Abdou Diouf dox na foofu seet sénégalais yu bari ay organisation noonu rek la demee seet président France mais li am solo rek mooy foo daan yalwaani soo fa demee ba tey nga fay nuyoo ji rek war na ñoo xam ne ab jéego am na te Diomaye bi mu demee ci Macron dafa nuyoo ji rek te kooku nag ku fa mos a toog ak moom da nga koo yalwaan yow nag sawaay boo amoon waajoo xam ne da yalwaan di la yalwaan ba tey mu romb la sol rafet ne la sawaay maa ngi lay nuyu daal di continuer di nga waaj avancé na kon avancement bu rëy am na ci peuple Sénégal te am na beneen loo xam ne mat naa xool mooy dernière visite Amadou Ba France ñi ngi nekkoon 27 personnes bi gouvernement bi yabaloon biñ demee 27 personnes yooyu cent millions fay nañ ko ci euh, hôtel cent millions ak lu topp fay nañ ko ci ñoom seen seen période yooyu hôtel tey jomaay dem na fa te ambassade ba fa nekk fa la tëdd fa lay fanaan moom ak ak ñim àndal donc kon nga xam ne cent millions yoo xam ne mënoon naa génn yem ci noosukaayu tubaab yi tey génnul mi ngi yem ci suñu poos tey kooku bu la waxee ne la gëm na dama dama gëm sakkanal alalu askan wi di ko nangu te parce que ñun li ñuy incarné dëgg-dëgg du yoon ñun France ni mu ñu rawee suñuy autorité bëgg a raw France bëgg a raw autorité France ci vie bu seer loolu ku nekk xam na ne euh, normalul vraiment euh, loolu daal laa ci am la ma si wax di wax ñun li ñuy def ñun ñeme nañ parce que ñun nit ñiñ fal ku leen xamul ñun xam nañ leen man bi ma xeexee ah ñu ne Bassirou Diomaye Faye moo toog ci bopp nguur gi man gor laa foog naa wal fajiri ma ne dina yor Sénégal ba mu egg du wor Sonko du wor peuple bi te li mu ñu li mu ñu dikk dina ci nekk ba mu jeex tàkk te loolu dama défier te gor laa te li ma wax bu ma xamoon ne du am du ma ko wax te loolu noonu ma ko waxee ñeme naa ci xàqal parce que xam naa ne ay gor lañ ay nit ñu am fulla lañ te ay patriote pire lañ c'est la première fois Sénégal am président boo xam ne même ki ko bañ xam na ne kii amul beneen intérêt après mu doog am intérêt Sénégal président boo fi ma si teg day am intérêt boppam wala mu am intérêt beneen réew wala mu am intérêt beneen organisation bu nekk ci ginnaaw muy doog a jéem a defal peuple tey nag suñ premier ministre suñ président de la république ki leen gën a bañ ñemewul wax ne ñii ay intérêt France la ñuy défendre wala intérêt Russie la ñuy défendre xam nañ ne ñii seen jéego bu njëkk mooy intérêt Sénégal te même bu ñu doon juum ci intérêt Sénégal la ñuy juume mais nit dina juum sax mais na juum ci lim intérêt Sénégal quoi loolu daal. man loolu loolu laa gis quoi te xam naa ne loolu la peuple Sénégal yëpp gis voilà. mais ci ñu bëri ñu ngi mer naan ñaa xarañ loo waru foo nekk ak yooyu loolu day def affaire am loolu amul problème ñaa bu daggalee boppam bee wala mu fekk ko France président Sénégal président am la su demee taxaw mu romb ko ah da koy nuyu man ne bu ko nuyuwuloon ma mere ko parce que ñaa nag du doomu Sénégal la quoi boo xam ne yaa ngi nii xam nga ko man xam naa ko ñëpp xam nañ ko te dafa nekk ci ci xeex ba toll fi mu toll ci ci liggéeyam man ñaa xaw ma ko mais xam naa ñaa koo wax ñaa xam na ko dafa xeex ba am fu mu toll ci liggéeyam nañ ko nangul loolu quoi te bu fekkee moom si na président jaral na ko mu dagg bee dem ba France xam ban heure la président ñëw mu taxaw fa su ñëwee na vraiment loolu effort boppam la quoi jomaay deful effort pour ñaa sinap ko mais ñaa moo def effort boppam te loolu sénégalais bi li mu ci war a jàng mooy yitte sëñ Touba day wax ne yitte wala Seexu Tijaan day wax ne yitte mën naa mën naa def lu nekk tey ñaaxarañ loo si nab yi ñuy def jaar na na ci foog xam ne ah kenn mënu ko ko bañal te doomu Sénégal la mën nañ ko nuyu ak leneen ak leneen yooyu du problème daal voilà. Asmaane Ndiaye décision yi mu jël ci tabaski bi yaa ngi koy xaar ci màggal bi. waaw ñu ngi koy xaar pour parce que benn secteur nga yore ko rek maanaam di ci di ci rendi sénégalais yi loolu dafa war a jeex yaakaar naa ne sa sapeurs si xam nañ ko ndax ay boroomi xel lañ te ay liggéeykat lañ dafa nekkoon benn benn vide rek ñu ci doon jaar bu demee ba tëju danañ xam ne. léegi affaire boobu jeex na jeex na waaw te El moom dina ko régler loolu moom xam naa ko waaw